Sering cheikh no ngi la nuyu dila ziyara dila di la waccu sa ci turu sama mak cheikh Mouhamadul Fatah mi nga xamne nek ci lu melni ca Jolof moo fi ci turam ak ci turu wa abna wa hadrati tijaniya ci president al hadji khalifa présidente adiamam Mam gan Magan di ko jaalewaat bu baax ngeen ñaanalal ko borom kërëm dafa genn àdduna ci fan yi mom moy présidente Abna wa hadrat Tijaaniya fi may ak yeen ni mi ngi ci muru ngeen ñaanal ko yalla ko yàlla jéggal ko ci turam ci turu coordinateur bu Abna wa hadrat Tijaaniya di Khalifa Fall ak mboolem waa ab naaw yi ci Sénégal ñu ngi yëkkati nuyoo yu sell ànd ak ziyaar di ko teg ci sa loxo nga tegal nu ko ci loxo sëriñ Moustapha Sy Al Amin tegal nu ko ci loxo sëriñ Babacar Sy Al Amin mu tegal nu ko ci loxo xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mouhamadinil Mansour bu ñu tegee nuyoo ci loxo mboolem umma bi dana ci jot di am mbégte ci sa teewaay ci sunu biir di la xoolee sa wayjur wu tedd wu baax wi nga xam ni vision moo indi lu mel nii ci xadara bi sëriñ Abdou kuy taalibe Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi ak foo mënti nekk yoreel nga ko dog ngir ñaanal ko yàlla ginnaaw covid 19 bi budul woon ak xadara yii dana am benn gaañ-gaañ bu gaañu ci tariixa bi boo xam ne giirug dund dañ koy faj ma waxaat ko gannaaw covid 19 bi ni mu yëngalee àdduna bi covid bi ba activité yu bari covid bi nasaxal ko boo duggee ci biir xadara Mawlaaya Seydi Ahmad Tijaani fii ci senegaal gannaaw covid bi bu dul woon ak xadara yi sëriñ Abdou initié dana am gaañ-gaañ boo xam ne giirug dund dañ koy faj mu tëwér waaye tey dawaa iri nekkoon ci koñ yi yu bari yi doon nelaw xadara yi moo ko yee conférence yu bari yu am doon nelaw xadara yi ñoo ko yee gàmm yu bari yu doon am ci gox goxaan yi doon nelaw xadara yi moo ko yee kan moo amoon gis-gis boobu ñaan ndaw dana toog ci kaw du gis mag toog ci suuf di seen sëriñ Abdul Aziz si Al Amin moo amoon gis-gis boobu ne xadara bi soxla na ñu yaatal ko ngir woo ci ñëpp ñu mën cee participer bu yemoon ci jàkka yeeg jumaa yi rek kon daayira yi ak conférence yeeg yi ngir ñu mën a jël seen organisation yi orienté ko ci xadara bi du yomb waaye ba ko yaatalee ba ne na ci ñëpp ñëw ñu xajal ci ñëpp activité yi la yëpp kenn yëgatul ni amatul ngir yàlla ak xadara yi nga xam ne ni mooy am tey partout ci Sénégal sëriñ Fataa lu tax gisuñ ko fii ma nga ceeg Jolof tey mën naa ne ñetti xadara amandoo na ci bis bi populaire léeg-léeg benn àjjuma juróomi xadara mooy amandoo te am na ñuy yëg lu ñoo xam ne fu sëriñ Fataa jóge ko ci benn xadara mi ngi sampiwaat beneen section loolu nag. làmmiñu sa jur wu sell ba ak gis-gisam bu xóot di sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin moom moo indi lu mel noonu yàlla na nu ko yàlla fayal yiw yàlla na nu ko yàlla fayal yiw yàlla na ko yàlla fayal yiw mbir yaa ngi baax de mi ngi dox de léegi sëriñ Abdul Aziz Diop bi muy ñaan ba toll ci laa yabtaliina allahu la yabtaliina allahu jalaaluhu bi baliyati l iraadi an daaka al wali la daloon Seydina Omar daf ma dal Seydina Omar bi yenent bi génne àdduna mu saalit naan képp ku ne yenent bi génn na àdduna ma tàqale boppam ak baatam bi Seydina Abubakar yéegee ca kaw minbar ba di xutba ba ne man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa man kaana yacbudu llaha fa inna allaha xayyun laa yamuut ba jàng laaya ja maa kaana muhammadun wa maa muhammadun illa rasulun qad xalet min qablihi rusul bi laaya ji daanoo dafa jóge ca taxaw gam taxawoon yegg suuf nee na mi ngi mel ni keroog la laaya jooju soog di toq ci noppam لا يجي وحنا ينن تبي بستنا في بايكو ويا عبد العزيز بمينيان بطل لك لا يبتلين الله جل جلاله دامل نبي بمان كو سوك ديك سرين باب سامبجو دقل مام سيخ سيد الحاج مالك مودو مبين جو دقل سمام مام سيخ سيد الحاج مالك لا يبتلين الله yàlla bu nu yàlla nattoo jalla buur yàlla mi nga xam ne màgg na jalaaluhu màggaayam yàlla bu mu nu nattoo bi baliyatil iraadi ci musibay dummooyu an zaakal wali ci waliyu bii di mawlaaya seex seydi ahmada tijaani nee na balaa bu nekk yàlla mën ñu koo teg waaye bii moom yàlla bum nu ko teg muy balaawu dëddu seydina cheikh ahmada tijaani yor sa kurus ba yàgg nga xëy dagg ko سيد الحاج مالك نينا يال نرنج سي يال موسال بلالا بلالا بلالا كان موي خم شيخ ديكو باخ ها نات رك كوي مانا اندي بلا دونغ كوي مانا اندي واو كو خم ني لم لا واخ ديل جيغلو يالا استغفر الله ديل جولي سي رنتي بي ديل واخ لا اله الا الله nga xeyne bayina ko natou dalna la moo bim waxe lolou dama ne amin yàlla bu nu ko yàlla natto Cheikh Tidiane ken du ko xam diko bax man ngay wote won nak ne xam nga ko xëy ba ko fekk xamoo ko woon Cheikh salatul fatih ken du ko wérdo ba circuler ci sa deret nga xëy diko ko bàyyi non non non non dos bi ngay jele ci salatul fatih soko baye ko bàyyee amatul lu la may dos bobu jotaayu hadratul juma jotaayu wadifa jotaayu lazim ku ko tàmm soo ko bàyyee sëñ bi li ñaan ku war ñay ba wàcce gannaaw goo ñëw warati mu tuuti am na loo xam ne xale doom moo koy bàyyi waaye ku nekk mag dëggu ko waaw diinay dëddu tariixa bi loolu yëfu gone la rek waaye ku jógee ci gone dem ba sa ngaami weex ak dëjjaaw da nga xam ne jawharatul kamal ak salaatul fatihi moo mën a dundal sa ruux ci ñi aju ci tariixa Seexu Tijaan bi Cheikh Al Hadj Malick moo tax bi mu ñaanee loolu ba noppi dane amaatana allahu akay amaatana allahu ala diini nabi wa xubbi cheikhina imaami tayibi bu dee dee dikk daal yàlla na nu fekk ñi ngi ci tariixa Cheikhu Tidiane ak bëgg rasulullahi Seydi El Hadj Malick mu ne bu may dem ci yàlla yàlla naa yóbbaale yooyu sëriñ kër si doomam feelu ko ne ko bàyyi maa dundandoo ndoog yow ba nga faatu sama kanam ma dugal la ci bàmmeel waaye amul lu ñux ñuxi ci sama xol lu may wan ne li nga nekkoon du dëgg moo tax ma ne danaa volonté wu ñaan dee ci li nga dee mun yetu hada al abdi antumita ala tariqi cheikhihi adxalt man Babacar si tamit benn objectif dong la am ko moy bu démé ba malakul mawti dima dikkal yàlla na ma fekk ma nek talib cheikhou Tidiane waaw lu mawda ñaana faatu babakar si ñaan ci faatu buñ ci faatoo jël ah buñ ci faatoo jël waxna bis ne len lay jarut muy gudd neel rek mak cheikhou Umar ño bokk tariixa doyna wa wasalaam lol do nga doyna mak cheikhou Umar fouti ño bokk tariixa rek doyna bo ci bolé Seydil Xaaji Malik nak seigne bi fay ëppati sunna fi ci Sénégal bu ñaan ñi gëna top sunna ci serigne ci boy wañi sa baram Seydi El Hadji malik ci kaw ngay wax premier ah loolu nekkul waxu par parparloo de walaysa nafun ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnat al muxtaari taxtanimi ki gëna wona xex bidaa gën a teg tànkam sunna delul ci téré yi ci mbindam Seydi El Hadji malik koku lu mu ñaana a faatu lu bax la gañi te affaire bi baaxam du lu ñuy wax dañ koy yëg tarixa bi dañ koy dund ba xam ne Seexu Tijaan dëgg la dañ koy dund sëñ bi leer kenn du ko tricher leer kenn du ko tricher ñi bokkul ci tarixa bi sax ñoo naan taalibi Tijaan yi dañoo leer dañoo rafet fu ñu ko jëlee simaahum fi wujuuhihim min asari sujud ah fala tara ahadan min ahlihi abadan illa wasimaahu loolu ci ku jàngut yooyu rek am na lu mu la war a jox pour nga xalaat Cheikh Tidiane lim indi bu dul woon dëgg du génn fa mu nekk di ñëw fii ci Sénégal te mosul ñëw Sénégal ku mas a ñëw ku mas a ñëw ci Sénégal te ëppale ci Sénégal ah bu ñëwoon tabaarakallah hmm? noonu rek laa koy tënkee la kon loolu rek lañ doon wax ci turu am naawu bi loolu moom motiver ndaw ñëpp ba nga xam ne ni tey ku nekk ngi woote di bëgg a jëli tarixa bi ah loolu nag du lu ndaw liggéey bu rëy la tey xadara yi nuy amal ci gox goxaani foo fi dem boo fa jugee retour yi mooy ah malaanu wadifa yi kat ma ngay dundaat ndaw ñaa ngay dem ca jàkka ya loolu rek nag nañ ci bëgg paa ñu ñëw ci stade yi xadara buñ fi jugee malaan yi ñu jël ko wékk ko loolu am na naa waxadatu tijaaniya woote wootewu ko de sëriñ Abdou lim nu woo mooy nañu dajaloo xadara populaire waaye bu nu ñibbee kër ya fajar nañu jiito ca jàkk ya lal malaan wadifa ya bu ñu sëlmalee fajar loolu lañuy wo woo ba wadifa yi suba ak ngoon di sax ci jàkk yi tarixa bi li koy dundal mi ngi ci wérdo wi waaye nekkul ci programme yi hmm. tarixa bu nekk nañ koy gën a pratiquer ci ay wérdo moo koy gën a chargé daa mel ne portable la nu fidèle yi di gën a pratiquer wirdu tariqa ba noonu la tariqa ba di gën a amee doole tariqa tijaan bokk na ci li ko may doole ba tey ñuy wàññi quatre cent millions yi ci aju lenn may ko ko lu dul wirdu bi wirdu wi moo tax ku la bëgg a dëddaleeg tarixa bi day fexe ba nga sàggane sa wirdo boo koy sàggane di faible te booy faible ku la bu max nga daanu waaye kuy teew ci ma malaanu wasifa suba ak ngoon di jàng alquran chaque jour sa ñaari xisib di jàng xisbu sayfi xisbul muxni xisbul bahri fatihatul kitab bi neeti ismillahi azam ma ne yooyu kenn du ko rëkk ci tarixa bi nekk xob ba ku la ba max nga daanu mukk mukk waaye nag boo ci bokkee te doo pratiquer doo wérdu du sell mais sëñ bi xob ngay doon ku ñëw ne la xëx nga naaw waaye gaa ñi nekk ci tarixa bi ba seen ŋaami weextaan ak ba jaaw Cheikh Tidiane lu mu indi du dëgg day mel ni ay picc ñooy sab ci seen nopp ndax ñoom dëgg gi dañ koy dund dégguñ ko seen xol la ne dañ koy dund ñu ngi jéggalu ci kàddu yi ci kanamu kilifa yi ndigal la rek waaye konoon sëriñ Pape ñu ngi jéggalu yàlla xam na ne bu dul woon ak président nanu yëkkatil kàddu euh, dañuy wax rek ne Babacar joxal nu ki nga xam ne mooy sëriñ Pape waaye balaa ñoo liir lii ñu tiim Oustaz Omar yi jërëjëf la kilifa nga doon wax sëriñ Abdou Nasid El Hadj Malick ko waxoon baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg Seyna Omar jërëjëf Seyna Omar jërëjëf Seyna jërëjëf def ngeen ci seen yitti seen alal seen temps yàq seen nelaw ngir yalla ak sagu bis bi ni sagal ngeen bis bi sagal ngeen xadara bi yalla yalla sagal len suma la tuddé yak ñing ko sekkal ñep ñi ngi ci biir jazakumullahu anna khairan ñi ngi wax ne liñ doon dajalel jumaa ji mi ngi tollu ci 586600 ala wa alayhi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 سن لخي شك على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا